aziyaaratu aziyaadatu ziyaara bu ne buñ xoolee fa muy mujjee rek mooy yokkute dana xam damay wax bëgg mu seet ne xattaa sàcc bi su duggee ci kër gi am lu mu wuti mu ngay ziyaar suñ ko jàppee dana yokk suñ ko jàpput mu xam dara dana yokk ndax bu rëccee lam xamoon bu demee lim sàcc mu dolli ko ci yokku na suñ ko jàppee tëj ko bu fa jaaree bàyyi sàcc yokku na kon waxatuma laa kii def lu ko kon ziyaara moom foo ko fekkee rek bàyyi ne na yokkute dana ci xam dara lu mooy ki nga xam ne dafay dem ziyaara ji te xol ba ma nga bëgg a yokk ca yàlla waaye ca ka ko xam moom mosoo tuuti ñu waxtaan ba mu yàgg ñu ne yaa ko yor mu ce que maa ko moom keroog loolu la tontu gars yi sëriñ bi yaa ko yor mu ne est-ce que maa ko moom bu fekkoon ne kenn ku nekk na nga yor yaa ko moom baara ñi ne bi bu wàccee oto bi ba mu jeex dootul yéen lu kenn dëgg la keroog li la mu ne li ma yore moom ko bàyyee ko lii la ci teg li ma yore sëriñ bi yaa ko yor sëriñ bi yaa ko yor mu ne taxut ma moom li ma yore bàyyi may ko ñun ñëpp daf ñu koo dénk kenn ku nañu la ci tuddee waaye moom moo ci dara bàyyi moom ko moom da bàyyi mu ne bu ko wéddi rek baal li li li Cheikh Omar wax léegi waa ji ba mu jàngee baat yi ko ku ko jàngal mu ne ko mu la nga jàngee fële bàyyi li ma la jàngal mu ne ko kon du baax kon kenn ku ci nekk li mu amee bàyyi moo ko moom ci loolu la ñu sukkandiku di leen ziar di def nag ziar ak istimdaad ziarah ko xamne dikkuñ pour imdaan way dañu ñëw pour istimdaan dañoo alquran dafa wax ne lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuun abdou Khadir Jili bim koy firi dañ ne lam tanalu mahabbati wa mahabbatu ghayri fi qulubikum hmm. ngeen jot suma mahabbatu mu fek yeena ngi bëgg leneen fek yeena ngi bëgg keneen ñun nag bi ñuy ñëw dañoo indaale mahabatu Cheikh Ibrahima boo xam ne yaakaar nañ ne raxul dara te nee na waat naa yum nu foog naa danay firi xal fu naa danay firi mu dajale ñaar yooyu benn bu mu ci waxoon rek doy na waaye daf ne xalaftu yamina na ni laa yuhibuni siwa al asad al asad mooy koo xam ne nii léppam sel na biiram sell na biteem sell na bàyyi mu nekk àgg ci maqaama boobu xàmmee biir xàmmee biti kooku mooy ki nga xam ne moo may bëgg mu ne waaye contraire kooku dafa may bañ damay wax ne nag contraire kooku mooy ki nga xam ne moo war a neexal biir aljana bàyyi laan ne na buñ demee ba dugg biir aljana pour réew ma neex pour aljana neex mu ne niiw ak safara ak niiw ak malaaka ñooy daje pour biir aljana neex waaw bàyyi laan moo ko wax xam nga lii yàlla yàlla lu tax nga xam ko boo xamee fi aljana nekk xam nga ne lekk nga gën a neex nii wopp safara moo la koy indi buñ bëggee lekk nga gën a neex ci aljana foofu ñu dugg biir safara xam koñ fare yi ci aljana laa war a waxuma bii waaye faru ñu dem ca malaaka ya am kuñ fare yi ca malaaka ya indi boole leen pour kër ga neex kon aqiqatan kooku mooy wala ak suuf kooku nag ak siyatu boobu bu amutoon konoon mbir mi du neex wala du xàgg ca nekkee kon loolu la Cheikh Abdou Barham bi ñu amee mahabatu Cheikh Ibrahima ñëw di leen ziyaara fekk ci yéen mahabatu Cheikh Ibrahima moo waral li gis nga mbir mi bu nekkutoon bëgg bàyyi dëgg dëgg xam nañ ngantam ñëw ku ne xam na fañ dal fa ñuy Cheikh Pape Mbaye yóbbu fara ca gaawal démb dama koy addis mu ne Pape Mbaye star la rek <laughs> waaw mu ne Pape Mbaye kaw kaw la rek xamuñ fuñ jaaree ñu nga wëri ca pincam sëñ Basiiru fa lañ jaar pour ñëw fii xanaa kon sori na waaye mahabatu moo ko indi nit ki bu mbëggeel nekkoo ci moom li muy def du koy xoolal ndaw si nga bëgg rek daf lay jaral xuus taw bi daf lay jaral xuus naaj bi mhm. lum la laaj nga jox ko ko fekk jota ko lu ne da la koy laaj ko loo amul problème gàmmo gi moom xaw ma lu ma sol nga ne ko jes neer laa lay xotti sa yaa ngi ko sax wiise <laughs> wiise sax joxoo ko fayee lan moo ko mooy mahabatu gi nga xam ne moo la dirigé bàyyi laa nee na am pour la fu ñu ko ne naaj borom mu natu ca la bàyyi mu ne am pour la fu ko ne naaj bàyyi laa nee na kenn mënatu ca dara boo yëboo la ñu nangul borom kon ñu ngi sant yàlla bi mu jëlee ñun suñ xibla jox ko bay bëgguñ mu dul bàyyi xooluñ mu dul bàyyi suñu dajee gi sufiyanke yi dañoo wax ne li xaaxul ahbaabe li xaax li xaaxul sufiyanke yi buñ dajee te mbëgg ahbaab la wax ahbaab mooy ñoo xam ne dañoo bëggante maanaam ni mën a bëggee noonu nga ma bëggee parce que ñu ko jëlee ci baatu ko pluriel bi mooy ahbaab ñi nga xam ne dañoo am mahabbat sufiyanke ne suñ dajee kii bëgg kii kii bëgg kii buñ dajee rek mu ne dafay am rapport dafaax mooy dañuy am rapport ci seen biir kenn ku ne yaa ngi xaar sa morom buñ jógee rek kenn ku nekk fees del te loolu mooy jotaayu tey amul sikki sakka ne jotaayu tey fii kenn ku nekk la ma waxoon Cheikh Abdou Barama keroog ca ca ca place euh, de l'Obélisque bi mu waxtaanee ba pare Seydi moo Ndaw jox ma kàddu ma ne ko lii la alquran wax ne suñ demee ba àllaaxira benn góor junne yi jabar ci benn minute nga tëdd ak ñoom ci benn minute ñu hëmbandoo ma ne loolu bu ko dégg bu ko bëgg a dégg mooy sëriñ bi nga xam ne mu nga toog ak yi nga xam ne ñëpp a ngi ubbi benn kàddoom gi bu fekk xanaa ko ubbiwul sa xol waaye benn kàddoom bi bu ko kàddoo ñëpp ubbi nañ mu ngay dund kenn ku nekk ci heure boobu yaa ngi fàtti fàtti kuy am rapport kay am loo yëpp mm-hmm. heure boobu junney nit kenn ku nekk yaa ngi fàtti fàtti jaakaar ne waa ji yow lay waxee buñ paree kenn ku nekk kaste xamuñu ah, lii mooy lañ wax ne bu buñ demee àllaaxira benn fóor junney jabar ci benn minute ci benn seconde mu sëy ak ñoom ñu xëmbandoo ci benn ca parce que buñ kaddoo kaddu ko kenn ku nekk xam na loo cay jël bayi laa na yàlla nga mel ni courant bi am na koo bu courant bi coupé lenn xaar hey courant am na mu ne mu dawali ba dafa am film bu mu doon seetaan jeexagut kooku loolu moo bu ne am na koo xam ne portable baa ko arrangé mooy problème am bu ñu am na mu daw branché portable am na koo xam ne mu ngi woon ci biir néeg mu seet doon kuy dem nañ ba mu yàgg clim ba fay bu ñu ne am na mu daal mu taalaat clim bi mu tàkk waaye courant bi moom courant la rek boo nekk ci biir kër gi kenn ku nekk ak la nga cee jël mooy këlimatul xaq bu jógee ci koo xam ne xaqul mi nal koo bu kàddoo rek kenn ku nekk fay am loo cay jël ngay naaw ca jaww ca kon xaqiqatan li ñi fi dajale ñun ñëpp mooy bëgg baay dara ñu fi dajale doy borom kaala gi daan jaar fii sa baay doon ko gis ndeysaan bët bu set ma ne la tuddee na maa xam du doom tuddee na nangam doom tuddee na nangam doom waaye problème bi mooy waa ji di la romboo kaalam bàyyi mhm. laan daf ñu waxoon ne koo fekk muy xas bàyyi ñaar dafa war a nekk taalibe baay wala dafa am doom ju def ci ndiggam gi war a nekk taalibe bàyyi mu ne waaye ku wax bàyyi loo ko war wax ba ca jant bi di la sooyee mune la ci tektal lamin maar di bayu bay mar mune bam deme fele ci barba nan ba ne ba ne fay khas bay bara musoor bi nek fi ci xur wi may fay xam ne yàlla ñemee yàlla bay bëgg de dee ba ngi na tatt ne ko bu la fi dëral fekke na dem tas borom musoor go xam ne li naa du dëgg te mu ngi man di ba ne tat ne ko bu la fi 2 heures fekke dana dem ca xur wa fekk fa borom musoor ba tas musóoram ngi xam ne li xoti du dëgg waji bi mande bo genn ci tali bi fi rek auto bi jëm dañ koo xoos def ko ci saaku dem suude ko ah. bay la min jàng jëm si ci baay balaa muy ak fi ci bàyyi kaamil gaa ngi toog ci maar mi di ko xaar avancé ne ko ba lamin maar joxuñ leen xaal bi ak maqaama bi pour ngeen koy loole jàmm yàlla yi lu tax ngay lor jaamu yàlla mu ne ko li ma li wax sama waa ji ma roy kenn suñ ko waxoon sa waa ji nga tukkil xatu ah, ah, di la ko bàyyi lamin ton li ñu wax sama waa ji nga rey ma rey kenn hmm. suñ ko waxoon sa waa ji Seexu Tijaan wala yonent bi nga tukkil xatu na bi moo tax nit ki bu amee branchement ca péeb yàlla ba courant bi moo koy def loolu bàyyi laa ne na weñ kenn xamee ko naaw ne waaye ba ko courant maasee avion ngi nii di channel mu ne courant ko maas mooy yàlla mu ne moo tax nga gis nit ki naaw ci loolu la Cheikh Abdou Aziz xam bi bi Cheikh Omar demee ba nga xamante ne ruhong, ruuxoom gi parce que nit ñi war nañoo mën a nangu ne yonent bi kat ko jur wala ko la Mm-hmm. lii buñ ko xamoon ci biir yàlla dañuy noppaleku yonent bi aminatu moo ko jur waaye ba nampal jotee dañ ko jox xalimatu xam nga lu tax aminatu mooy firi kóllure ki nga xam ne am na amaanatu bu wér kon yonent bi am na sécurité waaye est ce que xulmu biñ soxla ci moom bàyyi laa ne ne est ce que mu ci aminatu dëgg la ndax saadatu gi ñu soxla ci moom ndax mu ci moom. moo tax ñu dem ca bani saad koo xam ne am na saadatu ñu indi ko. koo xam ne am na xol mu muy muy muy yërmande. ñu indi ko muy xalimatu saadiya nga xam ne ñaari maqaama yi daje na ci moom mu nampal ko yonent bi lañ soxla woon ci xalimatu lañ ko jële loolu moo waral ba mu motee xalimatu xam ne yonent jàpp na yonent da ngay jommi. parce que liggéey bee ma. kenn du fay ñew naan ko alimatu ah, liggey bi motna fa am luy feñ lu xamne liggey bi motna mu jaxle xamne ki hatta na tuwa bu delo ju ay ah, ngi dégg waa ji xaqiqatan loolu mooy li feeñ kii bi mo war a ci peyu Cheikh ibrahim Niass mbir mi kenn moomu ko dama bëgg bu seet ne dama ak ben naar ci Tamba mu ne ma dama bëgg Cheikh ibrahim sama doom ci mané ko tax ma bëgg ko mu ne ma da mokal alquran bëgg bàyyi dëgg mané ko li lañ nga ko bëgg mané du li doon sama doom dafa mokal alquran te da bëgg bàyyi mane ko ku ko tërbiyaal loolu mooy mahalu shahid moom ku ko tërbiyaal xanaa yaa ko tërbiyaal mu ne ma baaxal loolu bu ko kenn waxal diw ma ne fii de lu tax nga wax ko mu ne ah, koo jox mu xàq yàgg ngaa jox ko bàyyi ko dëpp lii la ma tontu kenn mu ne ma bàyyi mosul ko xàqut parce que ki nar tax a gi ci bàyyi benn góor jóge na gànjaay benn kilifa ku mag dikkee ne daa soxla bàyyi wol ay dugub ak yooyu yëpp indaale ko fii ci Mati ndeke mbir mi la bëggoon xam ni mu demee xam naa góor gi bu baax a baax a baax ndax dama naan tooga moom di waxtaan mu préparé lépp bàyyi di waxtaan ak Seydi Aliou wala kenn ci taalibeem yi di waxtaan moom ne ko kooku ci bunt bi ne ñëw fa foog ne bokk na waaye bokk ba mu dikkee ne bàyyi damaa bëgg a tërbiyo bàyyi ne ko wëññeekul dem gànjaay ko tërbiya nekk ci yow góor gi mu ne ke laa gëj a ndeysaan ba tey bokkul ci bàyyi fa a bokkul. dëgg la kon bàyyi rek mooy koo xam ne bu joxee nit mu àgg loolu la Cheikh Adil parce que Cheikh Soubarama nee na bu ñu demee ba biir aljanna ña war a dugg aljanna dañuy setal seen xol yi wala la maa fi sudurihim min xilin ixwaanan bu boobaa ala sururin mutaqaabilin dañuy jàkkaarloo nekk ci siis ab bay ñas bi kenn ku nekk di yëg te taqamteku du yàq sa bu dara ñaare di ko kii di taqamteku kaane kii di taqamteku suukar loolu bu ñu ko mën a nangu ñu war ko mën a nangu ci biir yàlla loolu moo tax Cheikh Habib bi yàlla sellalee xolam bi setal te nag lii ma wax waxuma ko pour bëgg lu ko neex waaye ko xañaanu xam ne Cheikh Habib ku baax la Cheikh Abdoulaye Wilane ma moo ne oustaz koo baax la ca heure bu ñu wootam diwaan téléphone ñaar la may laaj ndax yaa ngi dégg sama Baye Fall bi benn gàncax fële la ko mu ne ma yaa ngi dégg oustaz mu ne ko mu koo baax. macha allah oustaz koo baax la. macha ma wax leen li Cheikh Baye Tuté waxoon ne maa ngi nekkoon ak Cheikh Abdoulaye Wilane ci guddi goo xam ne fajara ngeen xotti te jotagul. mission bi mu ci dox amul kenn kenn kenn kenn kenn ku ko ci dox. diggante seex bàyyi Tuté Niass ak Cheikh Abdou Barham. ci seen aaxiru ramax bi muy neex waa ji li mu ci suudee bu ngeen ko xamoon naa ko xam ndax ñun ñaar ñoo nekk ci mbir maam fu nee maam fu ma ne dem dem nañ ba mujj gi gàmm ak coppe Cheikh Baye Tuuti Ñas moo koy waxtaan su ak see tasaare ko Cheikh Abdoulaye Wilane nit dañ doon dox suma diggante ak yow ndax yow dañoo nekkoon ci guddi goo xam ne bët set doon may wax li may wax nga nekk ci li nga ne bi ma demee ba bët set ma xam ne ku bëgg bàyyi nga man ku bëgg bàyyi la ñaar ñoo xam ne dañoo wàcc ci arrêt te bokk ay bagage ki gën a diis la bagage dafa war a sippil kenn ki ñu mun a gaaw a ak yow loolu la moo Abdoulaye Wade wér na bu wax lañ taw Cheikh Abdoulaye Wade da ko waral ne ko yow alxuraan daf la tudd ko booy waxtaan Cheikh Baye tuut noonu la ko daan wax Baye tuut Cheikh Baye tuut yow yaa ko wax alxuraan tudd na la tuuti ak ukulaha kullahi mu ne ko yow heure boo duggee ci Baye ñëpp a jël li si naaw ci jaww ji mooy dëkk nit bu sa xol bi setee Baye Wade ne na dënn bu setee gémmeñ set bu taf li génnee fa a set te xeñ loo neex mu ne waaye bu dënn setee gémmeñ xeñ mën naa set waaye xet ba du neex mu ne mooy xol bi boo amee feebar mu ne waa ji buy wax ci yow mu dafay mel ni oto bu taxaw ci rond point du mën a dem du arrêt parce que li muy bëgg la waaye du ko mën a parce que xol baay bañ ku la dégg rek xam ne kii soo feebar nag waaye yow set nga wecc te Aziz nag maqaama boobu moo nekk ci moom ngor lool moom rek laa mos a fekkee ci àdduna bi am loo xam ne du man wala boobu fekkee ma keneen ku ko xam si Abdou Brahma di gàmm ci Tamba di gàmm asamaan taw sëriñ bay taw asamaan say taw la waa joo xooloon bàyyi ba mu yàgg mu ne ko baxarun fii baxari géej ngi ci biir géej Cheikh Abdou Barama di taw asaman ci di taw Cheikh Abdou Barama di taw xam ngeen ne mo moom waxtaaman taw la won parce que kenn anu ku ne gis nga xam nga taw day raxas seng bii bu tilime noor bu asaman yooyu ñaar yooyu ñetti bu seen wécc Cheikh Abdou Barama kat doom daf daan raxas xol yi dëgg la bari na ko xam kan ne defar na la te xamoo sax ku Cheikh Abdou Barama kuy wax waxal bu dëgg tax maanaam déglu nga waxtanam bo xam ne keroog la sa ruuxu su jóot ne wala tuma bañ ben jaamu yalla seen dama boy bañ bañal ndànk jaamu yalla bo xam ne xamoo lu yalla ay tabax ci mom ëlëk boko ko ba yalla tabax ci mom la muy tabax ëlëk bu subaa da nga bëgg ka dem te do meuna dem wala boy dem sa xol na naa pourtant ya ko bañon le motax boy bañ bañal dank bu mu xam nga kaddu goku boko ko do doo bañ benn jaamu yàlla te bu la naan bam yag mune ne bul chargeur xam kan nga iphone yi iphone nak koy sax mune ne pour yoro ci koy chargeur yoro ci koy piis dëgg jikkoy piis mooy lan mooy bu ñu ko dugalee fii mu uyu bu ñu ko dugalee fii mu waaye nag terewut orange ba mu doonoon ba tey orange lay mu ne jëflante nag benn mboqadam bu mu mën a doon mu ne waaye nag boo boo terlee benn mboqadam rek xam comme ni Cheikh Omar Sow def nii wëññeekuwaat xamal ne bi ma soxlaa yàlla ci jëmm ji kooku orange la mm-hmm. duñ ko dugal ci portable moom si béy ko tigoo wala mu soppee ko explosé xoolal jàngale bi yàlla bu gaaw bi kon fii la nekkoon ci aji ñu ngi koy ndokkeel seriñ bi taw asamaan ci taw pop fees daal gàmmo gi jeex si Abdoulaye Wilane war a dugg ci oto bi ñu dugal oto bi waaye diggante turbine bi ak oto bi oto bi mënatu faa sës sëñ bàyyi ma wàcc dem ci oto bi gars bàyyi leen ma ma dem asamaan damay dem ñépp ñaan ko mu bañ di Abdoulaye bi ñëwee ne ko kon kaay ma bot ah, wallahi watallahi bi ne kaay booy kenn bootu ma ne waa ah Oustaz Aziz Ndiaye moo lay ñaan mu ne nga ñëw mu boot la ma ah Oustaz bisimilah. allah allah. Cheikh Abdou Aziz Ndiaye sëgg. Cheikh Abdoulaye Wilane ci kaw. billahi maa ko fekkee. Cheikh Abdou Aziz Ndiaye sëgg. Cheikh Abdou Barama joxe xeet wi yéeg ci kaw Cheikh Aziz Ndiaye def ko nii. Cheikh Aziz di tukka. jëm ci oto bi muy tukkal ci oto bi. jërëjëf Cheikh Aziz arrière dugal ci àgg Cheikh Omar Sow tuuti na. yàlla may na jëmm ci loolu. jërëjëf. ñëpp ne dañ koy boot mu bañ. ñu wax wax mu ne day wàcc ci taw bi dugg ci oto bi ma ne ko oustaz Abdou Aziz Ndiaye mooy wax ak yow man kay bul ma déglu déglul oustaz. oustaz ne ko dama laa bëgg a boot. maa bisimilah. Simlaay baa ko dimbale baa ci Abdoulaye Wilane kenn xatam. déedéet Baye Niass. goog wax jàng noonu. ba mu jógee ko ca di seeti Papa Ousseynou. ñu ne Papa Papa Ba Ibrahima naka fàtte naa ko Papa Ba bu doon wax Dakar ñang Ba Ibrahima ñang mm. ak ki maanaam doon ñu dikk ne dañuy boot Baye. bi ñëwee ba jub Baye ne ko dañ naa bëgg a baat baat Baye fa téye kenn ki téye kenn ki fii ba mu yàgg sànni leen ca mbex ma. Oh. leen ba tey maa leen ëpp doole. <laughs> ndeysaan bi laay wax waaye <laughs> bi mu ne Cheikh Aziz bisimilah. waaw ah. oustaz mu boot ko. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. ibila moo bi yàlla defee li def Cheikh Abdou Aziz ci accident bi bi bët bu set ah, ci accident kuy dee waaye waxuma yow du dee la ko garanti nit waaye accident bi moom du ci dee ah. oustaz dana jógaat parce que ni ko waxee woon doomi bàyyi noonu laa ko waxee woon Cheikh Abdoulaye Wilane keroog moom koy def ne ko sa waaja nag def na accident boo xam ko ñaan rek ñaan fa ah, Abdou Aziz mu kon accident bi may deg ci la bok ma du ca dee. war du ca dee. oustaz moom du de ci accident boobu. waxuma ne du de waye bi mom du ca dee. heure bu ma koy oustad ne ma ko mu ngi tan keroog bi muy wàcc Tamba oustad joge ko kawla jot takar dem Tamba mo dañuy seeti oustad de. ndeysaan wallahi jour boobu. wàcc ci tamba ko na ak kalam bu wex barke Baye di tole xetam bi ci oustad oh. lépp weex te la boo déggee xet wi ni koy tóore ci biir kër gi oustaz Ndoye da ngay xam ne kii borom sañ-sañ di tóor xet wi di tóor xet wi ba fi ci biir néeg bi fekk oustaz oustaz ñu ko mën ko Seydou oustaz na ngeen def maa ko fekk tigi barke Cheikhu Tidiane dama tëdd ak cheikh bi boo ko jàpp sëriñ bi mu ne gént naa bàyyi seet si ma ah!

mu def nangam nangam ku songati dana daam moo ku bëgg ko song heure bii may wax ak ku ko song da nga daam billahi barke Cheikh Tidiane dëgg la man soppeeb Cheikh Abdou ngi lim ñaw ci diggante Cheikh Abdoulaye Wilane ak Cheikh daan Cheikh Baye ko Cheikh Abdoulaye ko la bëgg la di waxtaan ak mom di dindi lu bari ba mujj gi ñaar masha Allah moom moo dox loolu ndax lii bu ko ci yàlla fayoon doyul hmm? kon aqiqatan jëmm ji dañ ko ndokkeel borom mbëggeel la bi mu bëggee bàyyi bëggeel gi dafa maase ku dikk mu boole la ak moom Aziz waaye maa ngi wax ne sa jàmbaar ji hmm. Seydou Omar Sow moo xamee naan ci Baye Willane naan ci Baye Willane loolu moom ku ko dégg ku ne moom nga koy nangul bu gàmmo jotee fu Medina Baye Kaffrine ne ca ya, Cheikh Omar Sow Dan fa yóbbu ndox mu nit ñi naan ba mu fees wax naa ko barki démb boo jaay ne ko waajal dañ la jox hydraulique mhm. Mhm. yow ko gas ci Medina kaw alhamdulillah parce que nag xol bi la Cheikh Omar Sow dafa bëgg Cheikh Abdoulaye bi la Cheikh Omar Sow dafa am xam-xam xanaa ko xañaan dëgg la Cheikh Omar Sow dafa am xam-xam man bés bi ma njëkk a dajeeg moom njaxilat ñu toog ñu ñëpp waaye lu Oustaz ji Ndaw wax Omar Cheikh Omar Mottali ma ne ko waa Modou Ndaw booy bi ànd ak Oustaz ji Ndaw moom mooy kan desaan desaan mu ne ma kii Omar Sow lañ koy wax mu ne ma ci bàyyi euh, bàyyi demba la ne ma ma ne ko kii dana hub làpp tigi billaahi barke bàññeet nii laa ko waxee bàyyi Modou Ndaw ma ne ko goos nii mu ne ma ne ko kii dana xub làmb xaw ma dinaa ko fekkee xaw ma dana ko fekkee waaye dana xub làmb ngeen fekkee lépp sëñ bi kii mu ngi xub làmb yàlla may na ko xam-xam boo xam ne buy kàddu sànq bi muy wax ruux yëpp xam nañ ne kii li muy wax xam na waaw dëgg la de waxuma li muy wax ci man man loolu ñorut ma xam nga man lu ma ñor jaamu Cheikh Abdoulaye Wilane keroog bu ma dee wax naa ko ñi ma àndal moo bëgg bàyyi man bëgguma bàyyi ku mu neex loolu kii man si abdoulaye lan laa bëgg damaa nekkoon ak bàyyi xamuma ko bàyyi lañ ma tuddee ma nekk ci loo xam ne bàyyi gërëmu ma li ma ne xam nga ko football lamb tëgg lamb rek laa te bàyyi lañ ma tuddee barxam xam nga mooy turi njëkk yi sama bàyyi bàyyi la ma tuddee woon li tax mu tuddee woon ma bàyyi dafa dikk fii ci gàmm gi oustaz Barham Diop di def discours sama yaay ak ma hëmb mu ne sama jabar jàggaañ yaay bu amee doom danaa ko tuddee bàyyi ñag dugal ko arab mu mel ni oustaz Diop di wax arab moom yàlla mayu ko ko. Ah, dëgg la ah, ma juddu topp làmb ci ba dajeeg Cheikh Abdoulaye Wilane mu joxoñ ma ne ma mbir mi bàyyi ñas tër bi yàlla ci loxoom wan ma ne mbir mi bàyyi ñaf la ma door a wëññeeku ne ah kii mooy sama tooma man bi ma xamalee dëkk dëkk bàyyi ñaf bu ma laalee bant sax damay xam ne kii mooy suma tooma kon bu ma la tooma si Abdoulaye Wilane danaa laal bant bi xam ne kii toom la man lu ma taj ñeme naa koo wax toom man luma dajel ñame na ko hoye tom doom waaye si Abdoulaye Laan mom ko xamal de. ndeysaan. Iya, kon aqiqatan li wax ne maam li Baye wax ne bul contane ci jëm may ji nga am kontaanal ci ki tax nga am may gi man sumay bëgg Cheikh Baye ñess tay di ko liggéey fi la doon jàngee fi Medina Baye bi mhm. keur papa ci di keur maam dam lañ ma yobbu ñaari hat nar bu jigéen bu fa doon jàngale ceenee sama tanki Ya Fatima dañ ma doon ceenee. jatang ma mag maam daam ñooy bokk bool di añ heure bu ñu añee ma ne ko boo yóbboo nga ba ma man jànguma waajumaay jàng damay ñibbi ñaari xatu yàlla heure bu ñu bokkee bool ma ne ko bëgguma xam-xam du ma ko xam te du ma jàng sooy boo delloo ji dañu añ bët ba yaa moo papa si ne ko si di kii daan naa ko delloo ji bàyyi mi parewut ñaari xatu yàlla ku daan na parewuma pour jàng lu leer la wax nañ ko delloo ji <laughs> dëgg dëgg cinq heures la ma dugal ci oto bi yóbbu ma ma dem ñibbi mu ne sama maam xam-xam baax na métier baax na bàyyi nii damaa yaakaar ne moom du am xam kii moom tën na ma ñaari yàlla heure bi ñaañ def naan moom jàngul naa ko delloo ku la topp naan ma delloo ji ma delloo delloo ji ko lii moo tax ma indi ko bu ma sañoon indi leen borom xam-xam waaye lii la yàlla def dama nexut bagage am loolu la yàlla dogal dama newutoon bagage am te loolu mooy dëgg xam lu xew benn boy bu bandi nekkoon Dakar nekk agresseur nit yóbbu ko Kaffrine trois trois mois mu def fa vacance ñibbi Grand Dakar gi yarul lool ci ñaari tali sama papa ne waa kii fu mu ne woon ñu ne ko kii de Ousmane Cissé ko yóbbaale woon Kaffrine ci ab déwi laa mu ne ñetti weer mu mel ni mu ne ma ne leen maa ngi am bàyyi joo xam ne boppam bépp ay paaka la cam nañ ko fu ne def nañ ko lu def ma xaw ma fu ma koy defal boobu man làmb laa gëm jàppoon naa ci àdduna benn sëriñ baabu ngom rek waaw moom loolu rek laa jàpp àdduna bi baabu ngom a si gënal moom a gënal sax sama baay mooy kii tëgg làmb ji ñu jël ma yóbbu ma kafe mu tombeek benn ngénte sëriñ bi mooy ngénte ba ma àggee man dama jàpp ne man léegi ma ñibbi xam nii laa fekk ñu defal sëriñ bi te man kuñ daan xëpp li ma ci ma xamoon mooy ku nekk hôpital bay waaj a dee <laughs> man loolu laa xamoon ci xëpp sëriñ parce que maam daam am na lu ko doon ëpp waaye du nit mooy téye wantaay benn affaire bu ñu ko defaloon ci néeg bi di ko xëcc noonu mu koy xëpp man loolu laa xamoon loolu laa gis sëriñ a man xaw ku ma ku ñu ëpp moom ka xamoon mooy hôpital ku nekk hôpital bañ naan dana dund ak dana dee ba ma àggee gis ñuy ëpp paa bi muy waxtaan ma ne xay man de léegi ma ñibbi ma ci kenn koo xam ne fañ koy ëpp paa bi léegi mu dee ma ñibbi gàcce waaw ndeke paa bi du dee may dee yaa ngi dégg léegi bi paa bi waxtaanee ba pare dugg ci biir néeg bi sama maam maag sama maam ak bàyyi maam si de ñu taxaw pour dugg ci biir nuyu paa ma dégg affaire yuy dóor ci suma gannaaw gaañoo commencé nañ si kër yi jun junjung commencé tëgg ma ne eh <laughs> laa fa bàyyi te affaire bi fii mel na ni dara <laughs> ma rocceeku yoot sama maam ñëw ci daayira bi di xool ba yàgg maa ngi doon lu ndaw mu ne waa ji doo ma xabal pot bi nga yor boobu mënatuma <laughs> waa ji doon mbalax pot bi ma ko xabal ma waa ji ma ma téye pot bi di ca def ñoom luñ mënut gaañaa ngay tëb di dal ñii di ma may cent franc ñi di ma may téeméer ñi di ma jox lu ne affaire bi ma xaw a kon te xam ne lii moo ëpp li ma baabu daan may bu ma jóg dana baax foo ma ne ma sama maam fekk xëcc ma ne ma kañ ñu ji sëriñ bi waay ma ni ma delloo pot bi rek pot bi fees de la xarit ma ne eh fii dana neex a toog waa ndax man suñ ma waxee baal yëngatu bi war naa koo wax yéen laay laaj yéen ñi fi toog ndax tey buñ ma waxoone baal tëgg meeg fecc mi ci bàññeet ndax man war naa koo baax benn sufiyanke foo day gàddu rek ngegenaayam ki rek lay def ñu ne ko waaye yow wisaada bii nga xam ne koo jëm gàddu ko loo sañce lu rafet rafet yaa ngi ko téye mu ne bihi wasal oh! mhm. ñu ne ko lu xew mu ne damaa tarbiya tarbiya tarbiya bay bëgg a dee mënumaa àgg suma sëriñ façon jas bu ne def na ko mënumaa àgg keroog benn bët nag bés bu mujj bi mu jës bu ma ba ma tayal dem tëdd ca néeg ba rek tëdd jël sama bopp bi teg ko ci ngege naari rek ca laa xamee fat <laughs> ma jàpp ne ngege naari la ma jëm rek téye ko waaw jàpp ni yëngatu bi dëgg la Baye Niass. moo ma bëgg loo Baye Niass yëngatu bi billaahi wallaahi wa taala lii moo ma fa teg mais man balisé woon naa terrain bi pour ñibbi bu yàgg waaye bi ma xamee ne affaire baa ngi fi te bu ma tëggee xam la ëpp la ma baabu moom doole ma nekk fa di tëgg rek kon njàng ma neexatu doon yàlla waaye tëgg ma la la imam Ghazali waxoon ah. taallam naa li xayrillaahi fa aballaahu illa an yakuna lillahi hmm. maa ngi doon jàng te yàlla taxul parce que bi muy jàng bayam amul doole yaayam amul doole yóbbu leen ci daara joo xam ne daañ mos dara bay jaatanut leen yóbbu leen woon ci daara joo xam ne dañ fa mën a mos dara di nekk responsabilité seen bàyyi wàcc leen kon yàlla doon ñu jàngi moo mujj nag imam Ghazali bi ngeen di jàng nga xam ne wax na lu ne kashful hijab euh, mu kaashafatul xulub moo ko taarif ihya ulumuddin bu réy bi moom dim taarif kenn xamu boo demee ci yaayaale bi diini bi ñuy jàng taarix xam mu ngi wax ne ñun de dañoo jàngi woon te yàlla taxul waaye yàlla fañ na fa mu doon te yàlla ngir yàlla kon loolu daf ñoo dal ci kër Maulana Cheikh Abdou Barham kon Cheikh ngi lay ndokkeel ñu ngi ndokkeel sa ji naan ci bàyyi bi daal jërëjëf Seydina Omar euh, li mu wax nii damay jaayante man aw ma marchandise man aw ma xaalis te jaayante ñaar a koy def ki am marchandise di jaay ki yore xaalis xam nga moom li ma wax kañ ñi lëngoo ñu ànd liggéeyal bàyyi rek. incha man ñii ma ànd ci yàlla dama ne du ma sëriñ nangu naa nekk chef de groupe. kii xam na ma boo ma fekkee sama kër damay sol benn blouson toog di ataayal xale yi ñuy naan sëriñ du ataayal taaliba ñu ngi nii toog maa ngi ataayal lu ëpp ñuy naan ñu ngi nii toog maay ataaya sama biir kër di leen jox ñuy naan léeg-léeg nit fekk na ma non ndax sëriñ dana ataaya ma ne ko sëriñ nga wax du ma sëriñ man chef de groupe laa. góor gi tamit noonu la mel. kon jeex na. moo ñu attaayal rek. man di attaayal ñuy naan benn nit dafa ñëw seet ci guddi gi ñoom Malick yàlla fekk ci kër ga te Thierno woon ni mu ne ko moom nga romb muy béy ah moom yenn wut maanaam. Cerno di béy taalibe yi toog ci buntu kër gi ci biir ci biir kër gi maa ci buntu kër gi bay bi mu ñëwee ne ma ana sëriñ bi ma ne ko dugal ci biir mu dugg fekk fa booy ne ci Cerno ñu ne ko moom nga romb ko mu ne loo mën da cerno ci buntu keur di bay gaay talibé tok ci bir ma gëm affaireu serigne man duma serigne kenn man dama parégul li cheikh li cheikh omar wa fatu amakuñ ko ba tay ko amut fatu dana may fatu way nak nanguna anda ku nek ci bir bay ñati bir cheikh ibrahima ñu and liggey kon li la lay nangu ci bir mbolo mi loy duggu wax mo manit numay duggu wax ma ya alhamdulillah lo nga de waye man duma serigne bindeef mu yalla duma serigne kenn por dono, doon ko te duma ko doon ba pencam yàlla du ma nekk sëriñu benn mbindeef pare wu ma ko te du ma ko doon. Mhm. du ma sëriñu tam sama bopp doy na ma benn góor gu nekk guddi ñu koy wax bàyyi puy gis nga bu li xaamoon ba julli benn rakka nga ñëw ne ko yóbbaale pour yóbbu mu yóbbaale day tagg rakkaam gi amul lu mu ci négocier bàyyi puy <laughs> munoo ci dara dafay bàyyi rakka bi bi mu daf koy tagg ne la eh ku xamut fu mu jëm mënta yóbbaale kenn julliwu man sama bopp laay julli demal nga julli ci wala dootuma julli man nag may bàyyi <laughs> may <laughs> may yóbbuma kenn kon sëriñ bi ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi sokkeel mboolem taalibe yi ànd yow ñu ngi ndokkeel suñu mag Cheikh Mansour duñ ko fàtte ba pencam yàlla wax naa leen ne lisaanu Cheikh Baye ko ci ñes booy kaddu rek ku xamoon Cheikh Baye Touty wallaahi di nga xam ne Cheikh Baye Touty mooy dëgg la dëgg la dëgg la gis nga isa ahbabtuhu kuntuhu waaw Cheikh Mansour foofa la dafa bëgg Cheikh Baye Touty ñax ba buy waxtaan ak yow ku xamoon Cheikh Baye Touty da ngay xam ne mooy kaddu ni moo tax daf may neex heure bu nekkee ñu koy jox jotaay ñu jox heure ma dajeeg moom jotaay mu gën a da ngaa war a pour delloo ma ci suma papa Cheikh Baye Touty dafay ñëw guddi yi ñu bëri un ko ne ko waxal ci yëngatu soo demee na nga wax ci yëngatu bi ki fi nekk yëngatu rek lay def plus lay def ba heure ba jot mu wara départ jëm ci Goudiri ña wax lo won ci yëngatu ba ñu nga fa nek mu ne Cheikh Adi ma ci Adi Ndiaye léegi ma ci Adi nek ko boo demee bul wax ci yëngatu bi baraam rek mo fa nek talibé bay mo len di bayal ci tool mhm. mu ne ko man dama amul jotam sax dem ci baram bu fam nek nek sama dom may wax ci ay féru yëngatu yooyu man kay li wara wax ci baram xajul ci guddi deug la dëgg mu dik kérok la wax wa Goudiri ña gon ñep ak ñaan na nag moom neneen kaddu gi ma ñëk wax ci ëttu bayam la ko wax waaw mhm. keroog loolu la wax ko di neneen kaddu bi ma njëkk a jël ci biir mbooloo kër bàyyu Baraam Diouf mii laa ko waxee dafa papay Baraam Diouf moo am gàmma tuddee ko suma mag Pape Mahmoud yóbbu alaaji Abdoulaye mag ñëwoon ci na ne ko bul dem mu ne leen danaa dem Mahmoud fu ma yeewal ma dem fa te Ousmane Diouf moo woote te bàyyi mu ma boole woon ak moom ba muy dem dafa wax ne moom du wàcc ci oto bi lay yem mais Pape Mahmoud yeewu na jël L200 bi dugal ci siis ab Alaaji Abdoulaye bi ñëwee bu romb gàmbur mu ne waa lee may gis ci suuf ci kanam du suma du suma siis Pape Mahmoud ne ko ah moom la damay bañ ñu dem ba xaal ne la wàccal nga bugg a wàcc te doo am photo moo tax ma koy yóbbaale rek réservé ko. ndeysaan bañ àggee Alaaji Abdoulaye bi mu taxawee ci bunt bi gis mbooloo mi mu ne ko dañuy wàcc mm-hmm, mm-hmm. ñu wàcc bi ñu jëlee kaddu gi war ko jox Pape Mahmoud mooy Pape Ñoxor mi ngeen xam mu ne sama kaddu bàyyi tuuti moo koy wax sama la sa bàyyi tuuti mu ne bi may kaddu xaw ma lu ma ndax mosuma wax ci mbooloo mu ne waaye bi ma jëlee kaddu gi li ma njëkk a wax dama ne ko El Hadj Abdoulaye yéen teen ngeen ñun potu ndaa lañ def ko ne yéen paan ngeen ñun Potundaa lañ dafay am foo xam ne bu ñu fa tollee mu ne mu ne ko dañuy jëli paan suñ bugga a rooti ca teen ba mu ne mu a ko Potundaal du dem paan la ñuy rooti di ko sotti ci ndaal ba fees mais bu ñu demee ba daal feef ñu bugg a ndox pour naan mais dañuy wax ndaal ba dañuy wax ba pànne ko toogal ndax mënatoo dugg ci gëmëñu ndaal parce que ndaal dafa tuuti lu ñuy jël mooy dañu xooti pot ba génn tuuti ñu ne ko kaay dugg ci gémmiñu ndaal pour nga mun a génnee ndox ñun ak yow noonu lañ mel ñu demee ba nga xam ne ñu ngi bëgg a wax am na loo xam ne ñun pot yi ñoo ko mën a wax waaye yéen ndaal yi de alaay bi xay xale bi moom mën na wax di keroog la nangul Cheikh Baye tuuti xamut fu mu tojut ci àdduna bi keroog wax na lii waxtaan waxtaan woo xam ne ci guddi bi bañ demee ba ñibbi jot ñekk ko yóbbu woon mu xas ma seen oto ba dikkuñ te mënuñ jël jël mënuñ mënuñ ko jëlal ba oto. waaw oto bu mag ba yaa ngi koy fàttali. waaw maa ngi Cheikh Aziz ñoo cotisé mujj jël oto bi nga xam ne mooy minicar bi jëlaat gars yi yóbbu leen bi ma dikkee ñuy tàggoo mu ah ñu ma di ma la xasloo ba pare te mënuñ maa tax dugal ci oto bu ma def. <laughs> macha la ma wax ñoo bokk reer ma la xasloo ba pare te oto bu ma delloo ci Tamba sax mënuñ koo jël. bu dugutu nag yow du fi la ñuy fanaan Iku ku baax yal nañu ko yàlla fayal yal na yàlla fay leen Cheikh ya, Cheikh Mansour ñu ngi gërëm grand kana ñu ngi gërëm bu baax li Cheikh Aziz wax daf maa bëgg grand bi daf ma bëgg lool te man xam ci dara bàyyi daan mag ku bëgg xam na ko loolu la daan wax kon ñun xam nañ sa mbëggeel ci ñun na nga xam mbëggeel ci yow la fi du yàlla du jiital tapet digital du kum nar taxen li tax yàlla jiital la ñoo xam olof nee ku sa bàyyi dee sa taawu bàyyi di sa bàyyi alhamdulilah bi la yàlla tàggatale ay rakk yoo xam ne nangul nañ la di nga dem ci kër goo xam parce que mag mu fa wala yañ ñoo ku kër ga yow de bi sa gannaaw seddal ko ah xale yi nag biñ ñëwee bi ñuy tëdd ci sa gannaaw wax dëgg na leen wuñ puso indaale wuñ lañset indaale wuñ dëkk moo dara dëgg yàlla tàggatal na la ay rak waaye yàlla tàggat na la yàlla bu la tàggatee na tàggatal na la bàyyi laa ne na yàlla dina la tànnal te du la tànn dina la tànn te du la tànnal yow nag yàlla tànn na la waaye tànnal na la yàlla bu leen cat jàpp yàlla bu leen cat dugg ci barke Baye barke Cheikh Tidiane ñu ngi gërëm mboolem mbokki taalibe laay départ mu ne ma foo ma ne ko ci ne ma ren du ma ko tànn ndeysaan maa ngi départ léegi topp sa kaw ñëw nit ku baax na nii su duggee ca kër ga këram yëpp lay wax kenn leen ci léegi boo gisee dama fiy nangoo yàgg loolu la parce que day génnee soxnaam ñoom ñëpp ak i doomam ñu dem fanaani ci yaayam moom muy fanaani ci otoom jox ma néegam ndeysaan ñeenti fanu yàlla yoo xam ne ci otoom lay fanaan man naay fanaan ci néegam bu baax a ngi nii yombut li mu def yombut moo taxit nag yàlla jagleel ko biñ ñàkkee fii mu xat lool yàlla xëy ubbi ko mu jënd pàkk tabax fa R plus 2 yàlla na àgg plus 7 amiin yaa rabbi mu yóbbu ñu fa ñu dëkk faat moom mooy fu sori foofu waaye péeb yàlla bi fay sori rek mhm. Medina benn kër la woon waaye moomu ñu dem ba àgg foofu kon ku ànd ak yàlla noonu ngay mel kon ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp ñu ngi ñaanal si Aziz Ndiaye yal nañ fi yàggaa ñëw di ko fi fekk yal na yàlla may sa ñu xëy diggante fii ba fañ dal ñu def ko tëli boo xam ne ndox dootu ci taal nga xam ne heure bu ñu bëgg a jot ñu ni yàlla tàggat ñu ñu am suñu oto bopp yoo xam ne bu ñu dajee ci digg tëli bi àdduna yëpp dañ xam ne yaa may jël si waaye maay ñëw di leen ñaan naa ko sant bi may départ parce que sa ñaari oto yi taalibe ñoo ma jël si waaye ñaari oto laa leen top kon égalité na de. dëgg la te ba ñu daay nekk ñun ko toppee moo tax yàlla téye la ñun bañ al a ñëw. xam na lu yàlla yi jàngale yal na ma na ba mbedd Medina bàyyi Kaolack a toll yow ak sa taalibe yéen a koy tali. kenn du la ci ëppale. ci barke Baye Yara bi. képp ku fi yal na nga ñibbiwaale fajug xaaju. képp ku ma xoolee ngeen ma koy xoolee buñ fi dajewaatee déwén kenn ku ne yal na nga wax ne la ma soxla woon faju na yal na nga wax ne la ma soxla woon faju na bii ñu nekk kenn ku ne réerante ci yow te nga bëgg ko maa nay lay ñaanal ci barke Baye Niass waaye dina ñaanal ci barke sama waa ji si Abdou Barham moom ma waxoon ne Barham suma mbir mi buy mën a tibal naa la ci booli sama sëriñ moo ma ko wax ca Thiès ma ne ko yaa ko wax mu ne ma maa ko wax ma ne ko kon gars yi jox leen ma addiya ma tibal leen ci booli bañ paré bi mu jëlé carte daf né mako wax boli bobu yalla bu mu jeex waye ku ci nekk yalla nañ ci tibbu bol bu fess ndem mas na ma gëreum tarfatal ayni ma ngi ñaan ci yalla képp ku fi tok lepp luy rulanti ci yow nga soxla ko bëgg mu ñew yalla ñew ku ko am febar bu ne ci yow tem neexut na yalla ko yalla seppi nit muy jom bu jog tagok yow nit mag ñu ah, saxar ci rombé malam odar yalla la febar bi rombé waye ku fi am soxla yalla la topé ni sa nopp yu topé kenn bi fi kenn du jóg bàyyi ku ay noppam kuy ñibbi yóbbaale say nopp ñaan gi yal na leen toppee noonu ci barke Baye barke Cheikh Tidiane barke Cheikh Baye Tuuti adi moom Cheikh Baba Lamine barke Maulana Cheikh Barham barke Baye mi nga xam ne moo ko waa fi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah Barhamu Abdou Barhama Goudiri Gambul Gandiaye asalaamaaleykum wa rahmatullah